Monsieur le Président de l'Association des présidents de département, Monsieur Issou Benjeloun, Monsieur le Président de l'Union de la Chambre des élus de l'Alliance pour la République, Monsieur les ministres le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués présidents de conseil départemental et maires,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 survivre au-delà de 2024. Nous devons donc par conséquent comprendre que l'enjeu du moment est d'abord d'être unis, d'être uni Unis, il n'y aucune force politique qui peut faire face au Benobo Koyaka. Cette assemblée en est une preuve exaltante. Plus de 85% des maires et présidents du conseil départemental du Sénégal. Il même plus de majorité. Il s'agit quasiment d'une unanimité. Et vous êtes l'échantillon représentatif du peuple. Et quelqu'un l'a dit, en politique, la seule légitimité qui vaille, c'est l'élection. Alors ceux qui s'agitent dans les médias ou les réseaux sociaux, ne croyez pas que leur avis peut m'affecter. Il ne faut pas le croire. Z24 ou Y25, ce n'est pas ça qui va être soit le schéma que je à prendre. Et je l'ai dit lors des conclusions national. Puisque vous êtes la légitimité populaire, Moi, je suis légitime, je suis un élu du peuple. Donc la majorité, elle est là. Elle est écrasante. D'ailleurs, ils le savent. Pourquoi autant d'excitation, autant d'indignité, parcourir le monde pour dénigrer votre pays et son président Sur la base du mensonge et des inventions. Simplement parce que vous pensez en le faisant vous allez pousser le président à prendre une direction ou une autre, c'est peine perdue. Je suis hors de portée de cette agitation. Et mon parcours politique me prédestine. Donc, je veux vous rassurer. Moi, mon combat est ma plus grande fierté. C'est vraiment de vous conduire vers la victoire et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations. Et vous l'avez dit, l'année prochaine, nous irons à l'Assemblée nationale avec un budget de 7 000 milliards. Le président Abdou Diouf, président Senghor déjà, quand il partait, le budget du Sénégal était de 300 milliards. 19 ans après, il était de 596 milliards. Et 12 ans après, euh, le président Ouad, quand il partait en 2012, on était à 2400 milliards. Aujourd'hui, déjà, nous serons à 7000 milliards. Donc ce que nous pouvons faire en termes de transformation positive pour les populations, en termes d'accès universel à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, en termes d'infrastructures majeures, autoroutes, routes, ponts, chemin de fer, eh bien, nos prédécesseurs n'auraient pas pu le faire parce que dans les Yamoul, il y a le Mokodef. Et cela, nous n'avons pas le droit de gâcher ça par une désunion et des combats d'ego. Et là, je m'adresse au cadre du parti, sans exception. Personne n'a le droit de compromettre le travail qui est perspective pour le bénéfice des populations. On doit mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt la coalition, l'intérêt du parti. Et si nous sommes mobilisés tous comme ça, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à est balisé. Le plan Sénégal émergent, c'est à l'horizon 2035. C'est Même le programme prochain, le pape 3, il est balisé. Et le dernier qui sera le pape 4 dans cinq ans. Les ressources pétrolières qui excitent autant de monde, ils vont se calmer, puisque nous avons déjà balisé la gestion de ces ressources par une loi très claire qui définit les modalités d'utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz. nous avons défini une loi sur le contenu local. Ça, je l'ai fait parce que c'est mon devoir. Je suis quand même du métier, regarde mes Je ne peux pas être président du Sénégal pendant que le Sénégal rentre dans l'ère du pétrole et du gaz et ne pas baliser pour éviter les dérapages qui ont perdu beaucoup de pays. Bien sûr, le pétrole et le gaz suscitent convoitise et attirance. Et c'est en cela que nous devons rester vigilants. Vigilants dans vos communes, dans vos départements. N'acceptez pas que les gens viennent semer le désordre chez vous. Ne l'acceptez pas. c'est votre politique. Le rôle politique, c'est d'abord de travailler avec les citoyens de vos communes pour sécuriser les personnes et les biens. Bien sûr, l'État sera là, et fera son travail régalien. Mais avant l'État, il y a le travail citoyen. Et ce travail doit être assumé par vous, les politiques, avec les forces vives de vos collectivités. Pourquoi vous allez laisser les gens venir détruire ce que vous avez construit avec autant de difficultés Pourquoi on devrait l'accepter Le Sénégal s'est endetté pour construire des biens comme le train qui fait la fierté de tout un peuple. Ce train, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de le prendre pour aller à IBD ou pour aller à Djamnyadjo, c'est évident. C'est pour les populations. Pourquoi détruire un tel ouvrage Pourquoi empêcher aux populations de Guédiawaï, de Cambérène, de Dakar, bientôt d'utiliser le BRT par une indiscipline inqualifiable Mais ça, nous y mettrons un terme. Nous y mettrons un terme. le Sénégal ne peut pas se permettre à son niveau de développement actuel de voir tous les investissements qui ont été réalisés être anéantis par une bande de casseurs qui, qui, qui est de voyous, comme vous le dites, sur la base de je ne sais quelle considération, vouloir détruire tout ce qu'on a construit. C'est ça le combat et c'est ça le vrai débat aujourd'hui. C'est la mobilisation politique des acteurs dans vos terroirs et de faire face à toute velléité de perturbation, d'où qu'elle puisse venir. Ça, si vous le faites, je sais que vous le ferez. Parce que c'est votre devoir d'abord. Eh bien, en ce moment, nous aurons ce que vous avez demandé, nous aurons la victoire. Maintenant, il est clair que je dois m'adresser à la nation. Nous avons toujours dit la patrie avant le parti.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 ak UAL ADS agence euh, non association des départements du Sénégal ak l'union des associations des élus territoriaux ak association des maires du Sénégal ma sant aussi ñi jiite association yi ci xalaat bu rafet bi ñu am ak la chambre des élus ak les élus de Benno Bokk Yaakaar de la grande majorité de la de la majorité présidentielle ma sant la nag bu baax ndax lii da ngeen ko sàkku si jamono ju xat waaye wax ngeen ko man dama jàpp ne maire ci politique dafa am signification parce que yéenay les représentants du peuple à la base ñi fi nekk di wax waxuñ si turu kenn représenté wuñu dara représenté rien di tout parce que boo bëggee représenté dara da ngay dem fi ñuy wotee nga def sa liste ñu ñu fal la bu ñu la falulee au nom de quel peuple tu parles au nom de qui tu vas donc man dama jox cër maire wala président conseil un néli wala député parce que da ngeen dem compétir gagner yor ndomb tànk yor kaddu askan wi donc ñooñu bu ñu ma soxlaa te yàlla def tey ngeen am majorité boo xam ne amul natable ci Sénégal xam nga fi coow li moo bëree dañu dem élection maire yi nit ñi di xëccoo suñu biir c'est normal parce que mbir la moo xam ne ku ne dafa bëgg a falu donc résultat ya cay génn bu ñu ko bëggee projeté ci présidentielle kooku ñàkk xam-xam la pare pour les législatives parce que ay liste yu bare génn nañu suñu biir man mi joxe naa ay liste man mi jiite parti bi maa fay benn caution léeg-léeg bu ma xamee ne arbitrage bi dëgër na mën a yow dama jël bi nga dem def naa ko Kolda def ko feneen ak feneen ak feneen ak ñibi sax ak feneen donc loolu bu ñu ci bëggee am lecture c'est que on ne comprend pas les dynamiques mais li woor mooy majorité te liggéey di ko joxe yàlla dënk nañu ko waaye nag majorité lu mu am am solo su amul pas-pas amul unité du am solo su boobaa bu yaafus jógee sax mën na la perturber loolu moom mat moytu mais bu ñu jàppee unité bi nii ngeen ko waxee tey ngeen gëm fi ñu jëm taxaw nekk benn ak lu mënti am victoire rek ngeen di dégg victoire rek ngeen di dégg donc loolu nag moom laa leen di dënk l'unité et ñu éviter division diw la diw la gis nañ ne divisé on perd faut pas se faire d'illusion hein on est en régime présidentiel ça veut dire que président bu fi ñëw bu ko neexee suba mu tas mairie yëpp décret lay jël rek joxe benn exemple wax telle raison nangam nangam mu tas ko mu jeex tas assemblée na tas lépp c'est comme ça ça se passe faut pas faire d'illusion donc président ngeen di mën a fal mu jàll jàll lañu si des ñëpp donc pour loolu nag il faut éviter tout ce qui peut nous diviser ensuite il faut nit ñu am lucidité lucidité mooy ku ne war nga mën bëgg c'est normal sa légitime waaye nag ku ne na nga waxtaan ak sa biir sa bopp xool ndax war nga mën a taxaw ak nu situation yi mën demee wala war nga mën def loo xam ne dana yàqal say ñooñ c'est très important gis nañ ko fii ba tey ñi ñi naan dañu nekk candidat parrainage sax mënuñ ko am te amul benn parrainage buñ fi buñ fi yàqal kenn de parrainage mënuñ ko am parce que c'est pas évident te parrainage bu bees bi foog nga am du treize députés ñun ñoo ko wàññi rek ngir yërmande treize yërmande lañ dawa rek comme gars yi dañ commencé doon wax rek njëkk ñu wàññi leen ko wàññi leen ko treize mais foog nga am treize députés attention wala nga am 120 maires kan moo ko mën a am Sénégal à part yéen bi 120 maires amul wala boog nga am nee nañ 0,6 ñëwaat nañ ko ba 0,6 pour cent des 7 millions et quelques d'électeurs mais ci biir loolu du rek 0,6 foog nga am ci juróom-ñaari région bu ne ñaari junni nit yu leer 14 millions yoo xam ne c'est dans 7 régions la ñu bokk minimum. boo ko mënul am loolu looy sonale nit ñi sonale nit ñi donc vraiment euh, man dama jàpp ne engagement bi ñu am ak yéen am ko ak askan wi danañ ko continuer liggéey bi ñu tàmbali surtout comme ay élu laa toogal ci wàllu décentralisation ci wàllu développement territorial ak équité territoriale dinañ ko poursuivre déjà maa ngi wax premier ministre il faut que déjà même avant at bi di jeex waxoon nañ pakkat seen rural bi foog ñu comp si dara pour tàmbali ko minimum en cinq et dix milliards su ko defee nag sur le budget de 2024 qui va venir au moins ñu jéem a am une trentaine de milliards def ko sur le paquet seen li nga xam ne ci budget bi lay génn loolu dina tax vraiment ñu continuer concentré bien sur crédit yooyu ci li nga xam ne ñëpp moom la ñu soxla ci gox yëpp muy ndox muy courant surtout ñaar ñooñ loolu bu ko defee dana rejoindre suñuy préoccupation ci wàllu accès universel maanaam fexe ba ñëpp am ndox ci Sénégal ñëpp am courant ci Sénégal ak fu ñu mënti dëkk après ñëpp am ay yoon ñëpp am leneen ak leneen ay bërëbu fajukaay ak yooyu donc loolu mbokk yi. mooy li nga xam ne dama bëgg dalal seen xel buleen buleen kenn déstabiliser bu leen kenn déstabiliser uni je vous ai uni amul force bu leen mën a daane mais nag désuni moom xaw ma xaw ma seen avenir wala suñu avenir xaw ma ko désuni on est perdant mais uni on a une force mais qui qui est imparable imparable kon loolu mooy wax ji li ci des itam ah foog naa ne Ami Ndiaye wax na ko ñii bi am bi yóbbaale na tur bi moom njàppan wax na ko il faut que nit ñi di yaatal il faut ñu yokk solidarité bi mbir mi du affaire alal ju bari déedéet xam nga kii tabe ajowul mu bari alal ki tabe li mu am rek lay bokk ak nit ñi ak nu mënti toll donc il s'agit pas de chercher des milliards et des milliards non pour pour doo ko commencer di maye non mais la nga am yàlla dënk la ko mais nga bokk ak nit ñi parce que politique mënoo si nekk ba am alal c'est pas possible mënoo am alal am mbooloo la politique c'est d'abord la solidarité nekkal nit ñi ñoom ñu nekkal c'est aussi simple que ça donc il faut ñu yokk solidarité bi il faut ñu dellu ci base yi pour ñu dellu ci base yi dañ toog ndakaaru gi rek ah, naan dañu am conseil dañu am lii dañu am laa parce que balaa nga naan am na fa da ngay dégg monsieur le ministre ak monsieur le député monsieur le directeur day fekk ngeen yor pouvoir bi donc pouvoir bi nag di ko yor mooy mbooloo mi askan bi faut être à la base dès à présent commencé waxtaan ak nit ñi xool aussi li nga xam ne doxul si liggéey bi liggéey foog moo am lu ci doxul wala lu ralentir wala ay chantier ñu ubbi doxul et cetera ñu rapporter ko chaque semaine les responsables doivent être sur le terrain c'est ça le mot d'ordre bien sûr wax ji jar na ko jaru ko jar na ko boo leen bëggee tontu ñi nga xam ne wax rek mooy seen métier xanaa ñu xool rek si ñun ñenn ñoo xam ne dañ leen di féetale liggéey boobu parce que tam bon foog nga wax parce boo waxul nit ki wax ay kàcc day dem ba jàpp ne moom moo am dëgg alors que li muy wax dara du si dëgg dara donc foog mu am quand ñuy ñu tontu tuuti di dindi tuuma di teg li dëgg mandat bi par exemple ku ne xam na ne et c'est là où je dis un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que s'il a au moins l'honnêteté un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un n'en est pas un l'honnêteté intellectuelle recommande que même si tu es partisan, sur un débat, tu ne peux pas violer la réalité des faits. ku ne xam na ne ngay juriste ak bañ a nekk juriste Omar yu mu wax na ko léegi xam nga ni après le référendum de 2016 le conseil constitutionnel m'a instruit moi en tant que parce que le conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités quel que soit le rang parce que man dama defoon mu compter le mandat de 2012 ñu réduire ko il a dit il faut enlever cette disposition transitoire parce que ce mandat est hors de portée de cette réforme loolu kay leer na bu ñu nee euh, le mandat est de cinq ans euh, nul ne faire plus de deux mandats non du ñu wax cinq ans dañu naan rek nul ne peut faire mais nul ne peut faire amul lu ko jiitu ah <laughs> nul ne faire de.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 fi mu nekk ñenn ñi bëriñ may xool sax bëgguma ko gis de toute façon incha allah lundi je vous remercie euh, jërë ngeen jëf.